yeah what's up dañuy continue, ah hein, sama gars ni ma leen ko daan waxee euh, ñu ngi un peu parce que dañu amoon benn souci bu ndaw rek mais dañuy commencer li nga xam ni waral coow li tey lan la un big cipher, comme je vous l'avais promis am ñetti boy yu Mr MK Mr Son Daddy Mr Philo Meno. yeah from Boune ak from fan from from from from Joal tey MCG tàng laa ni indil sama gars eh, ñoom ñooy prouver li tax li may wax boobu ba léegi nii nii ñoom ñooy ñu prouver ba tey jii nii donc je vais pas rester ici à beaucoup faire du blabla damay bàyyi juste MK mu présenté wu nuyoo mooy loolu après ñu commencé. jërëjëf mic bi. yeah bëggee bëggee maa ngi bëggee gars yi ah di ñu wasi ah ñoo ngi bëggee bu baax di la bëggee yow mii gars maa ngi bëggee ñëpp maa ngi delloo respect ah. yeah from Poon ama name MKA yeah from Poon respect akan Mr. Yeah, big up. It's your boy Filomeno, aka Malika Death Row, aka the Mad Machine Killer. di bëggee di leen di leen shout di leen bëggee lu bëri quoi. yow Malika nga quoi. <laughs> Malika Death Row. yow. ak Mr. doomu métis bi yaa what's from Joal Fadiouth xam nga mooy loolu. big up naa leen wër DJ Xëch maa ngi lay big up. eh FLOP wër mu ngi nice. ñu tàmbali ah tàmbali yëngal duusu baaxee rek nga sànni ñu benn bit foofu noonu sama gars yi nuyoo eh, ñoom Mr MK Philomeno and Sondari ñoom ñooy suñuy invité ci ëttu Saifa fa tey jii nii ñu war a def lu dóob waaw pour gars yi di ko fàttali ko ay yëz yeah wow Sondari check yo arme mic bi check Sondari wow gay ceeb bi ma dalee ba léegi maa ngi door a feeñ foog ma tàkk def ca pët bi coow li mën a feeñ li du jikkoy son la si si de moom la kay ndax rapport yi tàkk laa leen andi ñoom ñëpp tere woon teew mais pour gars yi nga andi bom ma leen rey dem leen dàq daw yéen ñëpp lu tax mënoo leen dëpp non maa mën bitte am flow ci laa dëkk du téere ak mystique fi teg coow moo may motivé ndax depuis ba may gone maa ngi try rek di continuer doole ju bëri a dee bul la metti soo man dina mel ne liir bu dee si coronavirus fake nigga bitches boo fi jaayee jikko góor jigéen dañuy are sa the police rap laay def dosi dafay sambaare flow bi ngay teg maa ko fon dañuy tambaale xëcc beat ëndi ma dina maestro teg si beat wala ko si mbartalu xut mel ni gangsta gangsta flow bi ngay teg nigga ndeysaan rap like di def Joegele blank, le slang Maat ngay def de hero Flow bi ngay niggas know I'm the hero Texie si microphone nigga Loy ponkal di full dëkk néew bi Maat ngay teg damay rap ba jungle nee we Hard shit ngay tek robotique si mic Een grand ngay tek jox nañ ma das de big respect the might be, Flow bi ngay uh. I'm a real sign bi Gaan on the miike Flow bi ngay teg rap bi nigga le lay Di hard shit di teg dama tawat rap ram ngay teg imporosi beats virus laay teg di manifester wu si hit onda ngaat ngay teg ni nga benn beat ah bi dugg na ba planète Mars ama exa dars ni flow bi ngay teg microphone bi jëlen ni ndil microphone ni ram bi faw mu tëmb si onda maat ngay teg réel faw mu julli si ni dina teg ah bi dina a mel ni imam bu fàttee julli flow bi ngay teg boo fi fakk da lay tulli haat di tek remi dañ ko mokal jarul boy antibiotique maat ngay tek real shit bu ñu siotique emporo mi gis nga numay signé maat ngay tek sa best label la di signé pour nga tenn mi flow bu ñuy end mi rem ngay tek nigga bu fi ñodi di sa flow bi ngay tek melni ni bëgg nekk góor ji genni flow bi ngay tek suma raga ga dos si génn ni bi ngay o oh, ho ho gis ma ngi tek di emporo that's my homeboy mk MK flow bi ngay teg rab bi faaw mu damba DK. yo I don't have to pull my life since I had level. Magda sa bopp nigga yaa ngi si quatre niveau ñu lekka teg ni ani mooy dundal sa bopp carnivore dinaa la posen sa kafek neew si sa cancer microbe time fat sa business dañ may déglu sans stress game bi laa yéegal yéegal doo ma gis rek ñu les bisi laay dëbal dëbal duñ fi MC di ragal ma tapi woowee kesabat ma yang punya mau bëgg lu yomb ñemoo fat xoola ma uskul bu mag a mag rab di ma jàngal sopp ma jëne sa génn di dëggal li nga dul foogee doo ma tumal xam lu may kër see kaara say album du yàgg a bëse du ma la manqué manque sa di soxal dama ne dim de tese safo anka seese rabu fem sama kaas mën yi sa traite la ñuy construire prud'homme jub sa bandi feeg itam ñu doxuñu kusuñu tàkkuñu rabuñu bawuñu amuñu xamuñu ay ñu fatuñu àdduna teenu bënn sa amul gilet biñ si lab safra takk jool di wooyee sàpp lëndëggañ a leer takk ndeer mu sentineer foog yow réew laa yu dotti xeer yu fly wisi yeah right to deal sa xel la fat si musée bi I have to buy bitsi yi pré pour dee jox sama lépp caatu dee du tujj bund jox sama ruu dañu sama dëgg sa bëggee am fa nga doon dund naan di te di mbur boo xel da nga noo rawante daan su tineel noonu sama avenir sama naa fi doon ñu bëgg su laa dëmb sa pel yaaw doom métis bi kaay moo wax la dee la fii ma gént nee nañ booy bu ndaw bi moo fi gën a terrible kay sa koñ de dëgg gis ku lay siñ fekk baaxul kay ku lay sedd ci gaalu xaaj buum la fekk nga ci lekk mer jàngal na ma lépp ma sauf gedd war a dedd ci biir live ñeneen di la gën a bett tepp tepp moo gën yuréet step by step marqué sama empreinte ci sa live ba dooma forget jël naa sama décision léegi ci rab lay dee ñi ma doon xaaj ci beneen yoon ñoom de dinañ laa leen di jox may leen doole ji bi nga jëmbatoon daaw moom moo meññi ren sama waagaale buñ coobul du ma mën a suur su ma coobul coob bi yëpp laay xëpp suuf life bi nekk combat ma àbbu loxoy Pat Tyson ma màgg mel ni yenn gars toog ci taatu garab bi di xaar zëm check wow check rain full boog niggas mel ni martos bi ngay teg real shit bul di malto bi laa di teg nigga science bi ngay teg nigga japise indi hindi mi maat ngay teg rap am jëmb mbind mi flow bi kaw biit di rhyme si kaw shit di ma koy coaché rëcci mel ni Michael Scott flow bi ngay teg nigga lii du mbedd prison break season sex ngay teg what the lii du is on set. me, real shit. On de microphone, the de jongen die de jappen met de guerrilla sang sang. Flow in tech, de microphone van let bang bang. Hot in tech, make in tech. Man, dan mijn rap, nigga, moet je staderen, niet mampier. Flow in je tech, shit, be nigga, I'm the hot haki. What the fuck, my nigga, emperor, die laat het In the me, motherfuck in the me, what the fuck. Shit, in je tech, huh? Boeru underground, be laat het tech, die she beat aan. en Nee, de dinosaur, nee, de dinger tornen. Na dinger, ze beat, nigga, jingel, asa man, be. Flow, ngay check microphone fuck sa maam bi underworld shit ma ngay what the fuck fi nga tey bu filmé si ko bit da mel ni raag bu ñu jéem a tey xeex bi dafa tas ndax de kikki ah fra laa di free microphone mel ni bandi underground bu ñuy jéem a i wook it wokki flow bi ngay teg from the hood lay teg new shit mel ni bukki ënd ngay teg ma ënd ngay check fi la menu onda bi day free si free si free sa mic free sa style boo tegee microphone real shit ma teg ah, te sa testicule kind mi ngay teg flow bi ngay teg di ñor underground marketing de dosi motherfuck yow silib nga what the man jesi neer si kaw bit ënd ngay teg microphone di ma jéem a xulli box sa bëtti hibu yi microphone ngay teg fa ma rab yëngu ni from buun gëroo fu rab nigga ah ñëwal boog di rot si teen bi flow bi ngay teg microphone fu teeku ah ënday bu ñu tegee <laughs> mu ngi nice elm lay censuré de <laughs> mu ngi nice du du du loolu neex na de euh, MK dóoragul de est doo ko tegal benn bit mu ñëw moom tamit su baaxee nga saani ko benn bit moom mu ñëw après ñu soog waxtaan tuuti quoi yeah mu ngi tàng I'm a name MK now, I'm a from Poon ma soo ma dëgg sula sa bopp ndiga na lem sa tur may underground bi penti sa xol def lu naan si sa tëdd maan am ma fi morom tee naa dënk buur bi nànk ndigga balaa nga fi yo écotrip may kase fit round underground sa lamp dosu la ñuy fekki microphone bi lañ ma pour loo bay si jéem laa génne si dama gis kit jarul bandi damay jël fit ñu may jaay taata kenn du fay ko ñu nga boy junni damay double si deux coude at bi dina double suuf nga la ramp sans caisse ma dama la waay sama soro di nga gàttaaj kees yaa ngi dal sa maay sa MC mun ñu pël si line sa xeddal la ñuy si dana wooy ma rap business man taw sa kaw ni asamaan ba firal dëkk seen pa yow rap laa lay tegal nii maa ngi jàkkaarloo benn zaaru wala galas yi rap laay gën a dem na sa MC moom ñu nga talu si ñoo ngi teg di rap rap la ñuy def ko technique rap low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low non mais li mbedd la waaw dañuy sentir que nii gars yi dañuy fooye freestyle dañuy fooye cypher yi da ngeen yàgg dem cypher am Mr MK yàgg teew cypher n'est-ce pas. demoon naa euh, benn cypher quoi cypher euh, côté Rebeuss. Mm-hmm. wane sa bopp foofu noonu gars bàyyi la xel. <laughs> ça c'est sûr ça c'est sûr euh, Mr Philomeno. dañoo yàgg handle lépp luy aarum mbedd si kaw biit noonu dañoo yàgg handle suñu job. ba gars yi jox ñu respect quoi te phénomène bi du par hasard quoi. phénomène bi mooy du genre phénomène bi nga xam philosophe bi nga xam ne phénomène la fi jamonoom quoi looloo waral phénomène bi te loolu lan moo ko waral. maanaam mbedd daf ñu jox respect réel jox ñu respect hip hop gars yi jox ñu respect quoi du genre ñun lan lañ ko mën a delloo njukkal la moo ñu jooblu nice gain fële quoi du genre parce que mbedd kaam nañu respect. buun am na rap. buun ay MC MC dafa mel ni ay xaritu Lucifer lañ tellement que dañoo show. quoi jaxal na ma quoi direct. noonu la fa demee nag dernier degré enfer bi quoi. <laughs> Eh, dafa leer MK mooy lan. d'où vient le nom MK. yeah MK Moustapha Killa. ah ok <laughs> Moustapha Killa. mooy mooy mooy mooy représenté MK yi foofu non mooy MK mooy ok depuis kañ yaa ngi rab yow. Euh, depuis 2018 2018. ah 2018 2019 am ngay son yi nekk YouTube genre. yeah am naa benn son bu tudd am force ma YouTube fii rap. ok am go clip. non amaguñu clip ne. yaa ngi job ay projet ñoo ngi job ay projet ok Sondari le nom. Oussa Sondari day signifier son ci gaal bi Sondari c'est en anglais. mais son ci gaal bi futur dadi si rap Galsen.

mais euh, depuis quand nga commencé rap. man depuis 2014 2015 j'ai commencé rap. donc war nga am projet si j'ai naa ay projets yu bëri mais instant bii nii ñu ngi lancé deuxième pas ci fan yi rek lañ ko lañ ko commencé on lancé mais dina génn ci mois de mars bi mooy loolu. ok ben single la boo xam ne mooy loolu. ay son YouTube Son Daddy officiel soo Bindé di nga fekk sont son YouTube fort. non? am nga clip. amaguma clip. amagoo clip mais yaa ngi ciy liggéey quand même. maa ngi ciy liggéey parce que dañoo toll ci jamono boo xam ne gars yi dañoo soxla di gis li nga xam ne mooy lu visible. si tollatuñ ci jamono sound. que si sànni day tax aussi voilà promotion wu boobu noonu dafay des. mais bu fekkee gars yi dañuy gis sa image. job sa image fa solo xaw ma ñeneen ciy bàyyi xel waa wala déet. parce que artiste dafa soxla image. Mm. voilà donc nekk na loo xam ne aussi yéen a démarrer ci euh, que kii

maanaam ay mélomanes la ñu woon affaire yooyu. mooy les vers les années affaire yooyu deux yooyu si je me trompe pas affaire si lañ commencé woon noonu doon ko fooyee si lañ participer nag si ay certaines compétitions affaire yooyu noonu. kon jot ngeen participer compétition. non dañoo bu doon bu doon mbappat est-ce que nekkuma si rëg-rëg. <laughs> mais flow bi flow bi lan la da nga ko joob wala c'est naturel. non flow bi luñ luñ joob la tamit ak tamit 10 ans tamit expérience la tamit parce que hip hop. hip hop hip hop da war a complet du genre. Mhm. maanaam da nga war a dégager benn sa flow dafa war a dégager benn énergie bi nga xam ne ku la gis maanaam dina xam ne kii nii maanaam am na am flow bi am na ay kéemtaan yu mu àndal du genre waxuma la nag côté bind waxuma la côté technicité si kaw bit du genre. parce que tey jii man boo nekkee real nigga yooyu yëpp da nga siy bàyyi xel. te que real nigga da war a complet looloo tax real nigga du genre boo boo boo boo boo dee ñu naan la real nigga never die boo déggee never bi maanaam sa track yooyu noonu nga jooboon ak sa projet yooyu noonu ñoom ñooy nekk sa roue quoi di la dundalaat. comprendre nga fu may. ok ñun temps bi daf ñoo xooj mais dañuy yi 10 minutes avant fin bi ñu mën a participer de 16h20 incha ñu def benn 10 minutes boo xam 10 minutes de saa yu fa lay doon n'est-ce pas yéen a ngi a ko yëg bu baax est moo fay clim bi tamit. <laughs> du su baaxee nga sànni ñu <laughs> biti tàng foofu noonu sama gaa yëngal fii. mooy yoon lâché roue bàyyi sama gars Yeah. Michael Ford Jack. go nga booger bëgg daanu ma nga mel ni Jack. yeah man damay nekk fii the impro rap ñëw proxy ànd ak ay bro ñoom ay rappeur lañ man dama leen jàpp ñoo wow man dam ne di kaañoo man damay rab gars yi daanu fi ay rap non man Joal Fadiouth laa dëkk ànd nag rap non si soo dof dof lu mën ndëpp ndëpp daanu foofu wow oh, non te pourtant mën naa impro sax dama nekk fii di jàpp gars yi rek di leen nax jàpp rek di leen xël wow rek di leen nax jóge village de foog ne booy bi la la ma jàpp sam rappeur jàpp rek di gën a mën non yow tiit non yow fi jaar non soo fi jaaree dañ lay jàpp di la taat non gars yi jàpp jàpp rek non di la faj non duñ tux duñ naan te dañuy yàgg jàpp daaj wow. check check jéggi na mic flow bi ngay teg mooy dara jéggi na mic underground ngay teg box ngay di daanu flow ngay teg expérience nga gaañu ënd ngay teg bul di për si mic sama rap day manifeste wu ni coronavirus microphone ngay teg ni nga bul bi ah ramming a deck, gumu nigga met this, flowing a deck, nala technical lu met, what's underground, mad nga a deck, big bilale tech nigga nakalasi dechy, mad a deck, shit the ground won't be wrecky, wreck it till we get the fee, flowing a in the fee, ramming a deck, little ramming nigga pedophile, watch a 60 bit nigga, money took, wick wick, what the flow? flowing a deck, you get some wick wick, wick. bag a nasty bit nigga, and the nasty technique, real lady, the comeback, so you wreck nigga, little da yàlla carax si flow bi ngay teg ni nga gëmal sarax si rem ngay teg underground nigga nga gisile flow bi ngay teg underground ni wikile wiki teg ci microphone rap di muy takafon mën a rap nigga nga bul di dam di ni google du la ko dul li rap real shit real underground bi ngay teg di fighting ma fo marketing real shit bi ngay teg rap du comedy du dudu nigga nga bay du maxfus underground ngay teg real shit di taktu under mic ngay teg bul di jëm a taktu dootoo gañati moo nit ñi jàng bu ñu katatul flow bi ngay teg wall shit when bi sa përëtul yow ma génneel ni nga ay lamp rab laa gën a dem sa foloo la ñuy jàpp ka dàmp dem ki la non yaa ngi toog di ka tàngal rab laa gën a def wala satan wala sànga rab a def ni bro jox ma man sama sàng bu doon dama lay jàpp man dama liw kon dañ may sàng rab laa gën a def ni jàkkaarloog ni nga fiil no bul ma téye naa la téye booy di la siir man la kër ni a def yow la musi a def ngi toog si benn sées rab laa gën a dem si bro ni nga yow dëllëj bees maa ngi teg nii rab laa gën a def wala teg di wane technique amul lu may tege ma nga flow many ni technique rab laa gën a def si maa dafa benn caméra maa ngi càkkaloog si benn juice ko use the caméra Yeah, yeah, neen taxi waay taxi yes Check. dama xaar démb tey soog a ñëw gën a joog te man du ma kaaw amul kenn ku may toppandoo non damay daw rek di gën a gaaw bu baax desee damay rooti waat ne abu baax dam leen yàgg jàpp rek di leen di nga xaar bul ma may jël jàngal ma napp ndaxte moo gën ci rab bi laa yàgg jàpp mise ci sama ngëm-ngëm booy bi yàgg tànkal nit ñi tey ji fu muy mu jëm fii la réseau bi génnee gasal kàmb ba mu xóot nga suul fa min ba boo ko joggi di dee man du ma tatoo ne sama life laa jël sama yaram tatoué ma ci catoué nga xam ne dañoo juddu fekk seen life impact du ma mer de lenn moom ma jaaxal lu may def ba mer bëgg de dara sokkee gu fi soo bàyyee xel samay texte mag du dawal mbege bés may daanu da lay bett liggéey sa avenir ngir ëllëg nga doon ku tedd sonn ceeb ma ñëw ci impro lekk bit bu ba mu jeex du ma tàyyi bro non non man la sonda di doomu métis bi yaa ngi rap woon ko uuxu oh, hmm, est-ce que damay xaaw non damay rap di fii oh damay rap di fii go yow da nga jàpp sa teg rek fiiso man la benn boy Son daddy, sondaari dëkku Joal Fadiouth non bu ma xaadi rap laa jàpp yo. def ko paa bi oh shit te damay doon seen papa fils chic chic chic chic chic chic ah nigga dofi dégg yalwaankat bi yuuxu ni kaane bi di ii naan nigga agat maane nigga show money, flow a ngay Oh, go goma show money, show daade nigga flow bi a imporo microphone ngay teg véhicule ci ko bit cëpp cëpp ci lëkki maat ngay teg nigga mën a mel ni small gis underground bi a teg di rap la ñuy tingati ci coin bi less l'ouest nord sud maat ngay teg di flow bi a rock si rappalaan bi laa di jël nigga mën ni rap si yi flow yi ngay teg nigga fama rap si test yi imporo di teg di ma du zongale placement de jambe si ko bit di bu ñu tongalee si microphone ngay teg MC bu siitu ma jongalee rem bi ngay teg di teg di tak di reng ah ana ma bi nga fënd wateet wu ceet mi gees wuti ah. ngay teg di wuutin flow bi ngay teg si maat bu suukin bu suuf bu suuf si clan li du rabu kaana bi bi ngay teg di kaana bis di ngay teg di kaana bi ngay et ah. yow ku xamul boppam moo ki fooy di suur iblis jàpp sa teede raag la bëgg jar mi woppi liis ñu léegi sa biir te duñ ma lekk ni ma lekk seen xiif beneen rapport yi jëflu may ker te di laay di sàngo sa terees ko du ker rab teg ni rab laay teg ni benn prono bu ma naa ngi zee ngi men ki zee prono rab laay gën a def jom sa maag ma def ko promo amoon lu may teg nii lab life gën a noo ko foog maa ngi jàkkaarloo benn maag a def def alma taas sama kaat lu rab laay teeb noo ko fii sa danga taay noo ko yow yee du du bu doy lu dooli bu doy lu dooli bu doy lu dooli mu Proxi TV bu doy lu dooli yeah so Whoa, ben so daal. Hey, hey, hey. tàng de ah. waaw ñu changé mélodie changé gën a tiir bi bi gën a yéex ñuy dawal ni mel ni yee du ma ci rap damay tiir damay rap ba sa rapport te gémmiñam eh, soo fi dof di tiir eh, man na man na ci dama lay jàpp di màtt yow de yow de dënga fiir non dama lay jàpp rek jàpp jàpp rek di rek xaaj jàpp rek di leen xaañ jàpp rek di leen gaañ non dama mën rap non dama mën rap gaay damay rap yenn yenn gaay bëgg a daanu rap gaay su ma nekkee fii di daanu yow du ma yow sa gel man la tiit su ma rombee man la pis ok non man la man la soldat yi ne nekkuma gentleman damay gën a graaw ba yëkkati fi ay tontenaire non bu ma fiir non damay kiis bip bi dafa xaw a naan non bàyyi ma siiw bip du du joñ Uh-huh. Yeah. Muy solo sí, sí. Ajá, no olvides. Shit. Yeah. Shit. Shit. <laughs> Ah, yeah. Shit. Ah. Some. Yeah. yeah. Some. Some. Yeah. Shit. Shit. Some. Some. Bagger, bagger, shit. bagge bagge chic remi la jël leen lu rosa man si gis tubaab bi flow bi ngay teg microphone bu ñu tug tubaab yi indi yi sit indi gi sit body in the middle wat What the fucking do you shit My bi tek, teg ni ko tind booni flow bi ngay nigga, dugal nigga damal taaje booni rap du comedy, ah comedy, bagge ma numbe bi flow bi ngay tech, si microphone bu you rub any ah shit me it tech, ha, ah shit ngay tek, rap the gel gel nigga nena la si I'm ama malaka moo tiit flow bi ngay tek, short shit the nigga bul tiit kaak so la bounce to kaw beat flow bi ngay tek, nigga blanc to kaw beat ma rap blanc Als je flow bi ngay teg nigga do bi nigga dugg aji rhyme laa di teg ënd dañ ma Joe, what the fucking big respect flow bi ngay tech. Bullets is een nigga Flow ngay underground nigga van the wixper Rust ben je tag met een robo sapiens. Flow ben je tag big foot tot de cancer Under under mic, under under deal be Emperor si beat de freestyle ik gis ah uh, Nigga man ngi tag brand shit when you uh uh, Maa ngi rap de gis xës boy di paske Flow bi je tag ben je shit ben je asker. Nigga met de camera Flow bi je tag nigga I'm a rhyme dollar hot Haat tech tag nigga Nigga bu ko censurer Flow bi je tag nigga Nigga bu ñuy ensure Maat ngay ngay teg di walla fu the ni waaga uh, flow bi ngay teg shit di underground la ja uh, my phone ngay tech, real shit na sama température beat nigga the tàng mel ni volcan flow bi ngay teg real shit boo tëggatig si porte you love my nigga volcan oh shit my nigga boss lay tech nigga tech, teg do tutugu hek nigga ba there a nigga boog si beat laa My maat ngay teg flow real shit bu hekki Under ngay tech, nigga Man a rabu ikki di rabu real shit la du rabu nigga disque tawa naan demu paa fakas talu si bon xat dëbb si laay xaat koor si crane yu wóor lu ndaw la ñuy rëyal saaga ndey sa smartphone jàppal ku la gën a xëdde moo la tàkk yor kër xaj loo bëggoon gis si laa la si bu jéem a ñor di si bu gañee bénéfice dëmm a sit borom bopp baaxee bind poésie dëmm sa ànd ndëkkate tey seet fit rabu bu dalu jàmmi ni muy dalalee xel bu set dama ko yàgg faat xos su bëccëg di forogo si leeru mbedd fayit la bu daw di ragal dañ ko buule suñu man lekk naa dund réew ñii toog di xaar daan dolenkat bu ñu far doon am ci ñeme xuub xaar bu may denk ñoo ngi dese jaay ñu ngi understand rabe dama sama lax nu firi sama lax caab sa lami teg sa kaaf bakkan attan loolu sax ma jiini ainsi pager mujjee maaf yuux bu jëmu si a fee ci taxu na mujjee gaw xam ngeen di ngeen daw sàkkul xam ram balaa ngay déglu leer ñu dégg sa baat si kaw fa sa yaakaar bi nga doon foog la yàq topp jar ba mujjee réew gëneel soxla du sekk baax ni xol bu top nice nice nice gars yi seetaan j'espère que ñoom sont satisfaits voilà parce que booy boo seetaan li nga def xam ni booy mën nañu daal. doole doole de. non dañuy dolli sax dañuy dolli. dogali bi quoi dogali bi faaw mu am dogali bi. dañuy dolli dañuy dolli. dañuy dolli day gën a dóob mais juste euh, dama af dafa dafa am sam benn gayaan boo xam ni. mu ngi seetaan nee na ma carrément booy mën nañu rap mais dama bëgg ñu rap sans pour autant ñu ñu ñu teg leen ci bit. léegi am na benn géeyaan boo xam ne mu ngi leen soo ko seetaan mosu leen seetaan da ngeen ci bàyyi xel da ngeen koy woon carrément que yéen da mën a bind dama bëgg ngeen génn ma texte bi gën a dóob selon yow sa bopp doon jaayu tey la li gën a neex ci yow ngay génnee loolu laa soxla génneel moo ko Som Daddy génneel moo ko Mr Philo ak kenn ku ne joxam na ko soxla ma bit soxla ma dara texte bi gën a dóob ñu acapella yes yaa bukki ñemewul nit a ki noppam bukki bu reeree nit nit a jaar ci ginnaaw ba wër ko nomba man bëgg ci génn moo tax ba gaaya toog ci bopp koñ ba maa ngi atelier di teg tànk machine di kon samay bitu tupaak oui c'est normal wàccewuma samay loxo maa ngi yokk job bi comme dab jóge village nga foog ne booy bi bula la ma peinture sama bopp jàpp rappeur yi di gëlëmal obali taxul ma ne la wax ko gars yi gëmen tout dama kuul ñu jàpp ne son mënu leen a suul dadi mënu leen a xool fi kenn rek ne ko da nga bañ say waajur Yeah, Mr. Sound Daddy. Sound nice na de Andu. <laughs> yeah. MK ah. aja jaayal sa bopp bu dee dëgg la. yeah man. yeah. Eh, mën ngeen commencer participer ah mën nañ euh, tijji ligne bi 12 su fekkee baax na voilà commencer participer gars yi commencer wootee xam ne seen artiste la ñu invité tey yéema maa fi teg round microphone bi la ñu bi dafa kawee attanoo ko daf lay jëloo daaj bur bi taal ma tax gasa sa man bu jege naaj sa si lëndëm dooleel xel genne bu xiif du dégg jaar dress bi lay fekkente sa talent fay xam ngay ndee si ñuy changé toujours ñoo ngi job ak danse bandi maag jaru rawante ñu ma koy sekkal xam ne ndee xiif du ma daan lo jël coono di gën a yokk lu may teg sa woto sa xel dal xam ne yaay kan bettu ma woon tiyaaba yu ma doon encaissé laa xam ne bàkkaar dañ ma koy dencal làmp ñu laa ñitta sama bàmme ruubu lëndëm leeral sama xel kon foog sa temps bu may ñaan du ma tere tàng yeah dope dope dope dope monsieur Siri yaa ngi gis sa bopp ah <laughs> yeah man ñu déglu Mr Daniel Zuru live fu ënd underground yi manifeste woo doon ay rëboscope si mic bu tëkkaloo ndax seytaane nag si lëndëm gi lay joobee flow bi ngay teeg microphone nigga nigga bu ko suubee ënd bi ngay teeg di karactionné sa mic gis naa fi ay nit ñi nga xam ne dañu roy nit si tuuru yàlla bi flow bi ngay teeg ci ënd mic bu ñuy taara bi ënd ngay teeg derrière mic lu la jël te teg teg sa microphone tey ay lëndëm la ci gerotect boo sa mic ënd bi ngay teg bu filmé boog sa life ren bi ngay teg bi lu bu tàqatu langatu laqatu mel ni si dambal si ñaari pocc flow bi ngay teg naa ko firi boog si kalaama kocc bu lu mën a gëstu boog sa brain lu mu la jox si life bi boog lu mu la dox ndax li si faire ni gis what the fuck daf la mos a topp sa dernier jour life mooy sa mujjantalu life sa dernier jour life di firi boog sa ruu nu muy naawee na flow bi di teg bakkaari tilim su ruu science li nga xam ne mosoo ko gëm si sa underground wala si sa life bi nga xam ne di ko dund si mbedd ni nga la ñu jongale flow bi ngay teg si microphone experience la ñu yàgg a jongale yeah yeah yeah nice nice nice nice si dope ah si dope bo deglo boy man damay am lu may dégg quoi xamna que yeen xoma sen xalat lan la ci gaay yi mën ngeen woote ah mën ngeen participer 88 628 16 00 artiste lañ invité Mr Son Daddy Mr Philomène et Mr MK from Bungero euh, ngeen ngeen ngeen ngeen duggu carrément ngeen xoo ngeen waxtaan ak ñom ngeen da fay témoignage tout ça c'est possible damay deg ñu ni boy la duñu bind té pourtant man damay deglu sen lyrics yeen lañ ngeen wax ci lool wa mais xam nga dafa am ñoo ne dañ leen nii rek xam nga mhm. li olof naan ñi mën a kott amuñu mbaam quoi mhm. yaa ngi comprendre tey am na comme sama genre bi ak ñeneen ak ñeneen ñeneen ba ci côté Joal Joal bi fekk ay mhm. mais donc d'accord ngeen ni gars yi ngi bind ngi bind loolu loolu non que exemple mouvement game bi du genre maanaam meloman ak chroniqueur di wax duñ mais la plupart c'est que maanaam njëkkante projet yi tamit si la bokk dix ans la phénomène boobu dañ ko gis si game bi quoi. ak booy tamit jàngatuñ. Ah, gëstootuñu waaw booy tamit maanaam gëstuwuñ tamit xam nga hip hop knowledge la. intellect movement or revolution movement la quoi. du genre mm-hmm. faaw nga am benn savoir benn bagage intellectuel pour mën a handle tamit sa business quoi du genre parce que hip hop lépp lu ko tënku xam-xam la. Mm-hmm. loolu nag boo si bàyyiwul xel du genre jékki-jékki topp tendance bi du genre lan mooy tendance bi mooy ñëpp a ngi dugg si game bi jës ko yow da ngay daw peloton ñëw tamit si game bi tamit xam maanaam mooy loolu noonu tamit du genre wala tamit di njëkkante tamit la fekk ay buzz beeg du genre maa leen njëkk a naa nanga moom di to xam nga di togg loo xam ne ñorul quoi. tey jii su ma la yekkaloon plat boo xam ne ñorul benn kuddu sax doo ko si tibb. damay tibb rek daw <laughs> MK yow pourquoi ñu ni booy léegi bindatuñu te moo tax pour yow. ah yeah ok affaire bi moom ah, job la rek job la rek try try gars yi fay la yor sama noonu la fa demee mais. instant que la plupart que gars yi léegi mooy loolu ko li nga wax rek mm. ñoo ngi bind ñoo ngi job am na ñoo xam ñoo ngi job am na ñoo xam ne kon saa euh, Mister Filone nga ko waxee. Mm. gars yi tamit euh, njëkkante siiw mooy loolu noonu. mais est-ce que yéen yéen yéen a ngi jàng. si ñoo ngi jàng parce que parce que hip hop bi aussi nekk ci euh, te te te amoo yenn yenn yenn connaissance yi wala sa niveau d'étude tollu fenn fii pour man bind bi day xaw a tar tuuti est-ce que a ngi jàng. non man. tëbuma rap rap quoi. su ma tàmbalee rap pendant 2014 2012 fekk maa ngi gëstu. maa ngi gëstu maa ngi jàng. maa ngi xam gars yi ba léegi nii ba léegi maa ngi jàng. ba léegi laa jàng 2018 laa des sama benn son moo tax ma ne 2018 laa. commencé kon wàññiwul dara ci rab bi ngay rab bi toll nii bi. ba tey ñoo ngi son daal di. non man moom jàngatuma bàyyi naa jàng bu yàgg yàgg yàgg parce que. mooy loolu quoi ku nekk ak sa cas di muy ñëwee ku nekk ak ñëpp ñëpp ñëppay dund mais ñëpp yemuñu. waaw mooy mais terewuma am naa benn niveau ci jàng boo xam ne su ma bëggoon gëstu dara wala ma bëgg xool dara damay dem xooli ko. ok moo loolu. loolu aussi ci la bokk Mister Philo yow aussi. Yeah, juste que Daola def kii nii laa obtenir diplôme laborantin en géotechnique quoi. c'est bien Daola ko def quoi. comme ah, ah. formation. Ah, donc euh, on peut dire que ni gos yi ni am na parce que ñu bëgg parce que boo sentiree même ci seen lyrics dañuy sentir que ni yéen da ngeen di bind. sincèrement man sentir naa voilà donc euh, la la ñuy wax bonne continuation lan mooy ce projet Sondady li war a ñëw. sama projet. AKA la su weesoo deuxième pas bi ak yeneen affaire Ben projet AKA maa ngi koy def AP. Hmm. xam nga. bëgg ko génne après pour jox ko gars yi. noonu lay tudd AKA. AKA yes. Philo lan mooy sa projet bu war a. yeah instant bii nii maa ngi job si à part certaines featuring yi ma defal ak ak ak certaines kii nii rapport du genre ak ñi may woo featuring maa ngi pare benn projet intitulé xam nga simol bi quoi. simol bi instant bii nii xam nga laa nekk nii instant bii di roo night and day quoi bëgg leen mu dóob. lan lay doon mixtape album. non du genre ñu ngi xool daal ñu ngi xool maa sama gars yi non non si si si si si si fi lay génn. est que fii lay 2020 bi kat 2020 bi moom war na pare du genre. quoi ñu ngi xaar Simon projet quoi. Simon bi Simon bi moom dina ñàng quoi. MK lan mooy sa projet bu war a ñëw euh, fii ak ay fan yu néew. yeah ñoo ngi waajal ñoo ngi waajal si mois bi ñoo ngi waajal deux sound deux sound. deux sound yeah ki Free ñoo ngi waajal Free Rap numéro two benn bi lañ génnee woon mooy am force bi mooy Free Rap numéro un. Mm. numéro one lañ génnee euh, numéro two la ñuy waaj a génnee mooy si mois bi ak numéro three. yes sama gars neex na de mais instant yi moom temps bi xoj nañu quoi. temps bi xoj nañ yéen yéen yéen yéen nag man defuma dara nay nay leer quoi pour ñuy seetaan sondari moom mujjee ñëw Philomène euh, ak MK dañoo tardé voilà ñoom ñoo war a teel ñëw pour euh, euh, yi def purement saa fa am underground yoo xam ne kenn xamu leen underground ñun comme ni ma ko doon waxee rek nous sommes là pour faire la promotion des jeunes talents donc foog ñu ciy pour gars yi xam leen ñun loolu lañ fi nekkee

dangeen ko xam. non déggu leen déggu leen déggu bien gaawal nga ñëwaat ñu ngi lay xaar euh, avant suñu temps di over mooy loolu sama gars yi lan mooy doon seen mot de la fin. parce que émission bi fi ñu toll nii over na. waaye di ñaaxaat gars yi rek. Uh-huh. ak coronavirus bi nekk ci dëgg bi xam nga mooy loolu. gars yi ñu gën a ñu gën a ñu gën a protéger wu. Mm-hmm. xam nga ku nekk sa doom mu xool li muy waxee ak yow pour su jàngi jee ak yenn affaire yu bëri yoo xam ne day day tax. ba corona bi bu mu bu la jege bu mu la laal xam nga moo loolu ñu gën a xam nga ñu gën a protéger wu daal loolu laa am lu may wax parce que instant bi ñëpp a jaxasoo instant bi ñëpp a jaxasoo. si si sama waslob di la shout out tamit ci invitation bi. di la bëggee di la bëggee tamit yàgg sa victime bi quoi du genre ba ñëwee sa logo yi gis nañ du genre que ne ñu ngi fiy doog a ñëw mais gis nañ fi qualité de. professionnalisme bi nga xam ne dóob na quoi. dix ans yi ngay wax de. prostitute <laughs> xam nga di di di shout out sa victime bi nag. mais dix di si ajouté tamit comme lu sa waay wax quoi. instant bi coronavirus bi noonu dafa nekk si maynu jaam bi. xam nga te te te lii nii dix ans maanaam ndogalu suñ borom la quoi dix ans xam suñ borom moom. chaque chaque chaque chaque waxtu moom wala chaque année moom mooy teg li nga xam jambi jaam lay doon mais du genre xamna tamit na ci état bi gëna japp tamit ñu gëna sensibiliser tamit population bi tamit ci coronavirus bi ndax coronavirus bi nu muy propagé woo xam ça fait peur quoi du genre xamna <laughs> ça fait peur boo ko boo symptôme déggee symptômes yeeg nu muy propagé woo xam nga ah, ah, ah. côté sur le plan tamit ki ni santé bi tamit suñu district sanitaire yeeg yooyu noonu non mm. nañ ko nañ nañ nañ nañ jox gars yi ay jumtukaay yi nga xam ne bu fekk yàlla tere bu cas bi aggravé ñu xool nan nan lañ koy éradiquer quoi du genre. duude mi ngi koy moytu bu baax du nuyu kenn. di la sawro di la sawro di la delloo respect di la bëggee bu baax. jàpp te di wax kon Saalum wax rek euh, gars yi kenn tuddootul nelaw ba doyal ko waa parce <laughs> xam nga affaire bi la quand tu descends l'école euh, soigner il faut laver les mains proprement avec du savon yooyu noonu quoi euh, après tey dañuy éviter tamit joxe loxo yi tamit mooy loolu noonu <laughs> loxo loxo ak. si la bokk si tamit di ñaan tamit di ñaan yal nañu yàlla bi ah. di ñaan di ñaan tamit yàlla yàlla nañu yàlla musal si affaire bi ah ñun ñëpp ñun ñëpp ne la fa demee nag <laughs> jaajëf sama gars yi kontaan ci yéen à l'instant on avait sur scène euh, Mr Sondadi euh, Mr Philomène et Mr MK sama gars yi euh, loolu mooy nekkoon seen émission tey Eutu Hip Hop sen rubrique auto saay fa ñetti M6 ñoo tangal fi ba mu jëm jëmee ñoom ñoo tardé du ci man donc moo affaire bi gatt mais mënon na gëna a yaatu euh, ñu ngi jégalu xamna benen beneen yoon moom di ngeen télé a ñëw de ah. incha allah mooy loolu. Euh, alors dégg ngeen leen aussi amna na seen i yu ñuy préparé euh, ngeen bàyyi leen xel parce que je l'ai pas choisi je les je les ai pas choisi au hasard parce que ay booy am talent lañ fekk naa ci saay ma sépp leen ci boy fa nekk c'est parce que mën nañ li ñuy def donc ñu bàyyi leen xel ñu ngi job ay projet bu ñu génnee inshallah dinañ gëna am lu ñu ci seen talent et que nek leen ci bu baax sama gars yi. bis respect à vous dérangement bi yépp jaajëf kontaan ci invitation bi tamit bëggee ci bëggee voilà ci yéen. TV for life. télé bi la jege di la woon sa bopp. ëttu hip hop. ca kaw yes sama gars yi acca jaajëf yéen jaajëfal yéen ñi doon sétane ñëpp ah ñu ngi jaajëfal ñi doon sétane ñëpp à partir de Facebook à partir de télé bi ni nii dañuy seetaan en live en direct c'était DJ Kheuch la présentation dans votre émission ëttu hip hop Doura mel da ngeen di sànni benn bind wax leen ak mom jaajëf. miss out. Well, Mutefan. jeexal ah ñu tëj émission bi. ñu jeexal tëj émission bi. jeexal émission bi. ñu tëj émission bi. jeexal émission bi. ñu tëj émission bi. jeexal émission bi. so etu hip hop dañuy trap rek di rap di freestyle dañuy jeexal émission bi Proxi TV dañuy nekk fii di rap ba yenn gars yi site bi. pour ne moom mu ngi toog rek di site bi. waaw bi ma jaay prek yow ak say bitches. dama nekk fii non di rap te su ma neexee jaay prek ñi fi ci rap sama génération maa leen gën a aay fi rap man damay rap ba yi daanu naan booy bi est-ce que àndul ak rap ay nañ ko jeexal nañ ko teg ni ko tegal Prox TV professionnalisme ngay gis fii underground ni nga aay yi lay